grand man maa ngi dem waay. waa Aliou foo jëm. non dama am benn rendez-vous boo xam ne bëgguma ko tardé. waaw Aliou doo doo ñëw tardé su ma jógee foofu damay ñëwaat. du ma yàgg du ma yàgg. léegi léegi ah. moo tax. lan la. la xay lool la. ay yow Henri ngi nii. ay waay grand bi amati nañ gën waay. mais Henri. seet Henri toogal Henri balaa ngaa toog Henri. na fecc bu ma deex si yow loolu mënu ma koo muñ. Njaxal Njaxal Njaxal. loolu ay waay fekk na ko yow. laa ilaa deux mille sama at la. loolu maa xeli ko café gaaw xeli ko café. ay waay aare ngi nii xeli ko café. laa ilaaha illallah ci loolu ne. ngi nii rek naka yi tey. man yaa ngi ma doon naa man yaa ngi yaa ngi ñëw mais xaw ma woon ban jour nga ñëw. waaw dëgg ah, nekk nii moo ma doon woo keroog. mooy appel bi ma doon yëndu. appel bi nga doon bi mu doon yëndu. kon moom moo doon woote. Henri mii la woon. bi mu sonné laa xam do appel bu ndaw xam nga Aliou. Mhm. kii amuñu fay. dëgg sigil nañu ci mondial ba mhm. waye sigil nañu ci coupe d'Afrique mom mhm. ni il est le meilleur de sa génération wallaay c'est clair motax sa bu ko sama xol day sedd mhm. man ak mom duñu gëdd gëj di ndax ma xam lima la mëna wax ci moom mooy aaree ni defal def na lamu wara def ngir rewum sigi tey réew mee ko amel njukkal waaye Henri bala may ñëw ci génération deux damay ñëw ci Sénégal bu mu gëjee Coupe d'Afrique ndax Mor Sénégal 94 lu ñu gëjoon Coupe d'Afrique. ah noo gisee café gi. waaw café bi am na maanaam. kaay laay. Ah, rek. Henri <laughs> nee na café gi saf kon baax na. kon yow wàccoo nga ak man. <laughs> Mor dimbali na la dootuma la dàq. doublé salaire bi. jërëjëf. 94 le Sénégal gëjoon Coupe d'Afrique Sénégal demul 96 Afrique du Sud organisé ko waaye fekk na boobu jamono Afrique du Sud ñu admet dans ndax apartheid bi ñu bokkaatee 96 ànd ak président bu baax Nelson Mandela ñu daal di jël nag Coupe d'Afrique ca sen dëkk mooy sax sax na sen seen dernier mooy seen mooy seen coupe bu jëkk te boobu ak léegi jëlaatuñ ko muy benn Coupe d'Afrique boobu bis bobu Nelson Mandela da doon fekk ca kaw police bi waaye taxul Sénégal bokk bokk ci de 98 ari Burkina Faso organisé ko 98 quatre bi ko Burkina Faso organisé mu neex lool taxul Sénégal bokk 2000 ari Henri Camara ay jàjjem indaale armam indaale fitam indaale jomam ni Sénégal na loolu daf fiy jeex tey. yéen a ngi fàttaliku 86. Mhm. na ñoom Bokande ak ñoom Pape Diop ñoom Amadou Diop Boy Bandi takkee woon seen mhm. ni Sénégal par force ci mhm. àdduna bi. ñoom noonu takkee seen ni Sénégal par force ci Coupe d'Afrique bi. ñu ànd ak Umar Daaf. Kalidou Fadiga. ak ña ca des. Oh. xale yi ànd boobu nga xamante ni mooy Peter Sniger. di sunu entraîneur allemand boobu. waaye du moom lu njëkk am ci entraîneur allemand. 1981 mhm. amoon nañu ku ndaw Otto Pfister. Mhm. ok mu doon allemand yoroon ñu en 1981. ñoom aari seen génération li ci gën a neex mooy. Nigéria. Mhm. gan bi oh. mafia bi. ci la ñu wane seen bopp. mafia bi. waaw mafia yi yoole yoole yoole ah? <laughs> li tax ma tuddee ka mafia bi mooy. Uh-huh. xale yi àndoon nañu doon benn. Uh-huh. bokk ndey. Uh-huh. bokk baay mhm. am fit mhm. représenté seen réew mhm. nekk ay patriote waaye suturaalante dara mënu leen percé lépp yem ci seen biir Henri dama bëggoon nga ñëw man lan moo doon secret loolu waaw dëgg la euh, li nga wax dafa am solo quoi toog nañ lu yàgg demuñu Coupe d'Afrique bon ñun ñu nekkoon ay jeunes man maa ngi woon Jaraaf. Mhm. ay Malick Diop ñu ngi woon GIA. boo seetee temps yii amul woon sax ay professionnel amul woon ah. peut être Daaf moo fa newoon professionnel. ak euh, ku ñuy wax Keita euh, Salif Keita. Salif Keita bii way. non non Salif Keita bii way puuna la wu. Manga Manga Mali yow te bàyyi li ngay def. Salif Keita Salif Keita. déedéet. moo moo newoon moo avant centre moo newoon au niveau 11 avant El Hadjouf. Diouf di euh, star uh-huh. mhm. donc ñaan un la ni un professionnel un avons nañ ok bon di di ba ñu am ben match il fallait ñu gagner pour Coupe d'Afrique dernier match Coupe d'Afrique mhm. le match boobu yalla defal ma ci xewal ma njëkk a dugal. laay la la laa tu ah, loolu waa yow. amal nañu bari dugal rek. ma njëkk a après bon yalla defal ñu xewal ñu gagné. ñu gagné 2-0. Mm. ñu dem Coupe d'Afrique. sha allah waaw kay Aliou. dafa amone lo bëggoon laaj. Mm. waaw mm. mais contre nigeria bi Nigéria dugalee envahir terrain bi. lolu ndax ñun ñu nekkoon fi di seetaan dañu tiitoon trop. yeen nan ngeen defoon instant boobu yaa ngi jékki-jékki rek cëpp. dañoo ci pelouse bi. na ay ninja. doo comprendre ça. waaw dëgg même ñun sax affaire bi daf ñu parce que xam nga ñoom gëmëwuñu won but boobu. parce que ñoo leen mënee woon 1-0. mu desee 5 minutes nak gaay égaliser égalisé. ku dugal loolu mooy centré Fadiga teg dënnu dóor mu dugg. ya ko sànni de. ya na ci jàllale yàgg na ci yàlla c'est beau. ngay sànn. parce que gars lañu dañu yaakaaroon dañuy ñëw rek jaar suñu ko waaw te fàtte nañ ñu équipe ay ci katu nawetaan gars yi nga xamante dañu <laughs> dañoo raak seen voilà uh-huh. Uh-huh. donc ragal ñu woon dara ay Pape Ñoxor Fall ñooñu uh-huh. xam nga ñooñu waaw waaw bu ay joueurs yoo xamante ne bon Sénégal sax duñu leen tudd ci mais dañu dañu am luñu def Sénégal dañu am maanaam yéen maanaam maanaam tey si nekk am nga loo doon sa morom kenn ku si nekk am na loo doon dolli ci sa morom mais loolu équipe dëgg la moo doon gang bi quoi gang bi gang la woon mais ndax secret boobu maanaam secret bi maanaam du rek football bi waaye cohésion bi déggoo bi mhm. dañ nekkoon ay balaa loolu dañ nekkoon ay doomu ndey dañ doon dawalante ok maanaam mm. kenn ku si nekk yow tey jii aar yi léegi-léegi bu la neexee dem kër Fadiga añi jee fa noonu la noonu la lan demee bu ko El Hadj bu ko neexee ñëw fanaan sa kër noonu la lan demee est-ce que yaa ngi dégg de. te ñun 2002. Mm-hmm. même bu dul woon football bi sax. Mm-hmm. dañ doon daje ay paris di ut euh, di def ay réunion entre ñun. di reer voilà di reer entre ñun. sama jarbaat bi lu ma xam wax naa ko. Aliou mi lu mu bëgg xam ci football ci man lay ñëw. waaye damaa bëgg. joueur bu nekk ci équipe nationale waxoon naa la mooy kan. waxal ma aar. mooy kan ca la ma. Oh, yaa may honneur boobu. maa la may honneur boobu. grave aar Camara mi. Mm. ki jambar fàq tëdd la pire ki ñamenu na dugal bopp fu kenn ñamewul dugal tànk hmm. ki moy l'homme au 99 dix neuf sélection 100 bi nag jooyatuñ ko fi la ndax ñun ñoo la sélectionné nga ñew fi 100 bi man na bis ni ki tay buma ma déggati sénégalais nan ari Camara 99 la am 100 yi man na jërëjëf le meilleur buteur de tous les temps de l'histoire du Sénégal ñu ñoom bokandé nouvelle génération bi yëpp kenn ci lim dugal ancien yi ak ñi fi nekk tay ba tey Henry kenn dama ko ci li mu dugal ci équipe nationale jërëjëf loolu am na solo li ma gën a marqué ci moom mooy mhm. Sénégal Suède jërëjëf bi Henry Camara di def remontée bi butan nord bi bi mu naan Henry Camara restera toujours Henry Camara grand xoolal bu dagg bu dagg sama Aliou boo jooyee. waaw oh, yow tamit. non non. bul def noonu bul def nii bul def nii bul def nii grand mu nek lu historique ci suñu rew ndam lolu Sénégal mën na né moy ndam Sénégal bi gëna reuy ci Sénégal parce que c'était la première fois ñuy jall quart de finale té buñu jallé quart de finale c'est grâce à Henri Camara mi ak ñamu andalo Henri avant match bi ma dégg la nga ni euh da nga déggante ak sa yaay ci veuyu match bi mu am yum la wax di di nga duggal ay but may laaj ba xam lolu mo la motiver wala ban ban ban ban ban ban ban jàmbarte nga duggaale ci bi terrain lan la lolu lan la Henri waaw comme euh, man chaque euh, chaque veille match rek sama yaay dama koy wo mu ñaanal ma. Mhm. chaque veille match. euh match bi nak mo bokk dafa bokk ci match yo xamne ne ko mos a sama sama àdduna. parce que dama wo maire bi. Mhm. euh ne ko mais ñaanal ma suwa man may démarrer match bi. ñaanal mo ñu gagné. mu ne bu soowé yalla suba di nga duggal ñaar. di nga ñaar. waaw ma ne ko mais looy wax ni ndeysaan ndeysaan. <laughs> parce que mënu ma xalaat ni man dinaa dugal coupe du monde quoi. ay waay ay waay. kon mais looy wax ni mu ne mu yóbbu dama lay ñaanal waxal Amine rek. waxal Amine rek ndeysaan ndeysaan. waaw ma ne ko waa Amine. Oh. ñu coupé. sa yaay yàlla nu ko yàlla fayal. amiin waay amiin waay. yal na ko yàlla xaaree àjjana. amiin oh. maire bi moom dafa bokk sama carrière quoi. tu vois dafa dafa lu bëre quoi. en donc bi. suba si buma nyai mo andak ànd ak benn confiance boo xamante ne mooy loolu ko moo tax bi ma amin amin buma du dugalee ñaari but rek sama xel bi direct si mel dama ko woo téléphone après match bi ne ko mais oh. ma ne ko de de yi foko foko foko li foo ko mo dama ñaan si rek dama ñaan si yàlla rek da dom jaga nek dom ju bax rek uh-huh. waye tay bu fekkon daf ni ben nga ni fuk uh-huh. bu ñaanee du dal ah, waye tarbiyo nga sanday uh-huh. ba mu gërëm la mu ñaanal la mu dal mm-hmm. xam nga ni doom ju baax mm-hmm. bu toppee ci ay ndigalu waajuram bëgg waajuram mm-hmm. wallahi la azim mën naa sauver tout un peuple te aari camara mi def na ko aari soo tooga xam naa ni amoo jot nan dem ba gunge la yéen toog leen xaar ma aari <laughs> nag balaa ngaa def ak ñu may <laughs> jalgaati ñaari laa lamb xaar leen après dinaa ñëw kër ga ok jërëjëf incha allah jërëjëf def noonu ah jërëjëf boo yoroo rek ma ah mais fan laa jëm aari tamit dina ñëw may def ni